jununul hawa di seen émission bi ñu jagleel mag ñu baax ñi di muxaddam yi àndoon ak borom mbaar mi mawlaana maam xalifa ñas ngir waxtaanee seen taxawaay ak seen liggéey ci xadara bi ngeen mën koo am ci seen site internet naylul maraam point com site bay seetu ak tasaare jàngale maam xalifa ñas أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما mbokki jullit yu tedd yi ñuy siifoor ci seen site internet www.naylulmaram.com gannaaw bu ñu santee yàlla julli ci sayidina muhammad salallahu alayhi wa sallam nuyu ñëpp kenn ku nekk ci turam ak santam di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu comme niñ leen ko diggee woon ay jotaay yu am solo yuñ leen daan andil ci dund waliyu yàlla boobu muy mawlaaya xalifatul xaaji muhammad àndoon ak yéen ci point yi passé dalee woon ci juddoom dem ba ci jàngam dem ba ci waajuram ak ñi ko jàngal ak ña ca aju ñëpp comme niñ ko xamee nag tey ñi ngi waat ak yéen ci yeneen point yu am solo seen émission bii di Junoonul Hawa présentation Ibrahima Safiou Niass ngeen ci àndat technique alaaji Idrissa Diom réalisation Cheikh Aboubacrine Touré waaye tey ñi ngi am gan gu tedd gan gu sell gan goo xam ne ñun ndawi jamono lu ëpp ci suñuy taarix ci kër gi ñu bokk muy kër Mawlaaya Xalifatul Xaaji Muhammad ci moom moo ci suñuy marjax moo ci suñu référence ñu nekk nag ci kër ki nga xam ne mooy première xalifa bu Mawlaaya Xalifatul Xaaji Muhammad mooy ki waxoon ma in tara fi mashriqin aw maghribin ya saahibi min haadirin aw baadi misla al xalifati wasmuhu qad xaasahu la bi riyasatillah wala al ifsaadi tey nag ñi nga am gan muy Mawlaaya as Xalifa Ñas moom mi nga xam ne ñu bari sax ñu ngi yaakaar Mawlaaya Xaaji Abdillah lañ ko tuddee maamam te fekk loolu yëpp cër bu mu am ci maamam la waaye nag cër boobu la am ci maamam Xalifatil Xaaji Muhammad it ndax ñu ngi ko tuddee Mawlaaya Xalifatil Xaaji Muhammad xam naa moom moom la ñuy dalal tey mu ñëw ak ñun tey ci maam Xalifa Niass bu na 1930 jàpp 1959. la ca am ci ay histoire yoo xam ne histoire yu marqué jamono maam xalifa la ak la ca am ci ay chiffres yoo xam ne yëpp chercheurs yi yeeg ñi ñu mel danañ ci mën a jëriñoo yooyu yëpp dinañu ca dikkal kon sëriñ bi waa Naylul Maram ñu ngi lay ziar di la nuyu di la baalu àq ci qualité bi ñu jugee waaye itamit ay auditeurs yu Naylul Maram ñoom it ñu ngi lay nuyu di la wax asalaamaaleykum wa rahmatulah.
kon ñu ngi leen di delloo nuyoo di leen wax waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. di ñaan yàlla yàlla defal leen fatxu defal leen seeni mébét may leen fan ak wér jéggal ñu jéggal leen seeni bàkkaar ndax liggéey bu am solo la ñuy def ci jamono ji nga xam ne jamonoy informatique la jamonoy information la jamono yi nga xam ne xabaar yeeg yëpp dañ koy jaarale ci ay fil ak i appareil mu tasaare ko ci jaww ji yóbbu ko ci ñeneen ñu taataan ko damay wax ne àddina lépp weccet la ndax boo jëlee cinq mille muy kayit nga jox ko nit mu war ko yóbbu ci barab dajeeg nit ku soxla cinq mille ab këyit di yore weccet mu jox la cinq mille yi weccet ba nga ëmb weccet woowu bala ngay agsi ci bitig bi keneen soxla weccet woowu jox la cinq mille nga jox ko ko jógee na fii cinq mille yi këyit diggante bi doon na fi weccet ba muy àgg ci bitig bi mu nekkaat cinq mille noonu nag mooy lii ñu tas tey xabaar yi ndax ni ngeen koy déggee ci jaww ji lay jaar te fekkewu leen ko mu tas ko kon yàlla macha allah dafa def xereñ ci doomu aadama te doomu aadama mooy xalifa bi yàlla ci kaw suuf kon li ma la waxoon rek mooy yàlla juñ dindi leer ga la doomu aadama boo bëlee boo jëlee aadama ak xawaa boole leen seen siifar aadama quarante cinq la xawaa quinze mu jox la soixante yàlla di soixante six lumière yi soixante zéro six la boo ko boolee boo booleeg zéro six plus six plus soixante mu jox la soixante six moo indi wali yi di toll ci xaal boo xam ne dootuñ fi nekk naan maafil jubbati illallah ron jàllaabe bi dara ronuwu ko lu may yàlla ñi amul dégg googu nag naan kii dafa bokkaaleeg eefarlaak nii naa fekk déggam moom moo soriwut xam-xamam ci saayir la yem te wax naa ne yàlla turam yi juróom-ñeent fukk la ak juróom-ñeent waaye ñeent yi ci gën a mag mooy lëwalu wal awalu wal aaxiru wa zaahiru wal baatinu yooyu ñoo tënk lépp zaahir la baatin la moo njëkk moo mujj kon ya nit ki ko doon nag dana am ci loolu dana am zaahir dana am baatin kon maam Khalifa dimension yi mu yore yëpp zaahir bi lañ mën a waxtaanee baatin bi am na loo xam ne xamuñ ko am na luñ xam man cee wax tuut am na loo xam ne xam nañ ko te sañuñ ko wax kooku mooy maam Khalifa mi ngi gane àddina mille huit cent soixante dix neuf ñii ne mille huit cent quatre vingt génn àddina mille neuf cent cinquante neuf kon ñu ne dundam quatre vingt juróom-ñett fukki at la yu manqué ay weer mu juddoo Selig ñaari fani koor bésab àjjuma dégg naa ñuy wax bésab altine ndax yonent bi di la waaye ba tey dëppoo naag yonent bi ndax hamza bi boo demee daf na qiila layla al urubati alhamlu fiihi wa li haada taxaalafal anbaaw kon guddik àjjuma ci la yonent bi tàbbi ci biram ndeyam moom nag guddi moom nag bésab àjjuma te tusbaar ja ñaari fan ci koor ci la gane àddina dundam yëpp ci ron baayam la ko def ñi ko jàngal alxuraan baayam moo ci njëkk ndax baayam doom ju nekk moo la daan dalal moo lay dalal gannaaw gi la lay jox keneen mu jàngal la ndax ay awraadam ak ay nashataatam mooy ay activité am mooy ko woon mu toog en tant que sëriñ daara di di jàngale alquran ndax lu nekk ay marxala la gannaaw bu mu ko dalalee Maxtaar Njaay Njaay jàngal na ko kii itam Alsaan Kuma Daraman Siise jàngal na ko waaye jàng jàngalam am Alsaan Kumba Daraman moom ci déglu la toll maanaam nafar di tari ay xidib ñu di la jaajante di la wan runge yi di maanaam di di la wan waññi yi
moom tajwid la ko jàngal daal waaw maanaam tajwid yi wolof
mooy waññi ci mag ñi waaw mooy mag ndax ndax xam nga dafa am baat yu niroo te nag mag ñi seen maxaarij demeewutoon noonu ndax waxi ajam gi li ñuy wax interférence linguistique daf cee am ci wàllu nutq bi mooy tashaabuk min nahiyati nutqul xuruf bu ko defee doo doo xàmmee diggante xaa ak ha ak aa yooyu pour ñu ràññee ko dafay jafe ba am na nooy demee da ngay da ngay runge maanaam da ngay dale ci saar bi jëm ci bële te bii nekk ci suuf bii nekk ca kaw loolu nag ñu di la ko ràññale waaw mag ñi dañuy wax ci nuuxihi ak nuuxiha ñu ne binni galaay binni mbërgaan xaqtaay gaa nga xóot nuuxiha bii nuuxihi la bale nuuxiha loolu moom sëñ bi ay làkk leen root di waaw mag ñi loolu lañ ko daa def xam nga waaw xam nga boo ne xii day mel ni da ngay binni xii boo ne xaa day mel ni da ngay ree waaw ñu ne nuuxihi ak nuuxi haa noonu lañ ko daan maanaam nuuxi yi mooy nekk bindi waaw nuuxi haa mooy xàqataay waaw waaw ñu ne nuuxi yi bindi galaay bindi bërgaan xàqataay gaa nga xóot nuuxi haa waaw ci terme boobu daal ci la maam xalifa jàngee waaw maanaam mag ñëpp moom mag waaw waaw mooy mooy tënk yi maam maamalaay ñi amoon na téere alquran boo xam ne dafa indi wàññi yooyu yëpp dafa indi wàññi yooyu yëpp ak ak yuus yi ku mu laaw yuus yi ñu ne yuusi naay magam tooxoo na waaw maanaam noonu noonu dañ daan daan ràññale kii nu mu tuddati yi nga xam ne dañoo niroo waaw te boo ko jaawalee wa voilà voilà mu ngoog waaw loolu moo ci wax donc loolu mooy gannaaw loolu nag mboolem téere yi maamalaa ji moo ko jàngal teg ci ku fa indiwaan téere bu bees boo xam ne baaxoowuñ di ko jàng mbaa mu tumuranke maam alaaji dafay oo maam xalifa ne ko kaay dalak kii téere bi téere bu xees la loolu moo taxoon maam xalifa xam-xam bi bëri beneen bi ci des mooy mu jëg maam alaaji bëri nangu yër xam nga mag ñi yëpp mu jigi dañu am cataracte bu ko defee nag maam xalifa bu xëyaan ndékki ci maam alaaji lay nekk ba nit ñi tëdd mu door a ñibbi mboolem bibliothèque yi maam alaaji yëpp maam xalifa moo ko yëral mboolem kàggu téere yi amul benn bu ci maam xalifa yërul kon bu xëyaan day ñëw liiral ko waaw bàyyi di dégg
de de bo- bo- booba bàyyi dajalagut sax ndax bàyyi maam xalifa jàngu jàngoowut ak moom bàyyi gi maa ngi ci jublu maam alaaji ndax moom ñoom bàyyi waaw waaw bay ma waaw xa- waaw waaw bay xa- xam nga boo nee bàyyi nit ñi dañuy foog ne bàyyi ñes ngay wax waaw waaye ñoom daaw ñax bàyyi bay lañ daan wax buñ na bay buñ na bay rek kon ñun ñoo ko rafetal na bàyyi ñoom bay lañ waaw ñoom bay ñoom ñoom ci seen seen seen wax bay lañ daan wax buñ na bay rek maama laa ji lañ wax waaye fi mu ne boo ne bàyyi dañuy jàpp ne bàyyi ñes nga wax waaw kon bu xëyaan daal day ñëw liiralal maam maama alaaji laa ji waaw té- téere yëpp loolu moo loolu loolu ci li yokk xam-xamam bi la bokk mooy sax waxuma la yokk mooy di ko may xam-xam ndax téere dafa jafe woon kilifa yi demee ni maamalaaji rek ñoo mën a am téere yu tumaranke yi ndax naar yi dañ ko daan indil ay téere di ko ko sottil tax booba mool yi xewut waaw am na comité boo xam ne ci naar yi bind rek moo ne woon seen métier bu nawet jotee xam nga naar ñemewut taw ak yooyi bu ko defee dañuy takk ñibbi gànnaar maamalaaji jox leen ñu jënd seen i waxande yu mag waxande yu weñ yooyu jox leen xaalis maanaam la ñuy dundee foofu yëpp maamalaay ji da leen koy jox ñu dem waaw ba nawet wàcc noor bi ñu del siaat bon léegi nag mu nekk ci loolu ba maamalaay ji génn àddina 1922 yaakaar naa maam Raji booy 15 juin ci la génn àddina 1922 nawet bi ñëw maam Raji maam Khalifa daawu nawet yi daawu nawet yi maam Raji moo daan def bu nawet jotee mu léemu kër gi ànd ak maam Roqi Njaay boobu moo doonoon soxnaam su ndaw dem nun- dem naweti koosi ak daara ji ba nawet wàcc mu del ci kaw la maam xalifa nag sañc saam
sam xalifa waaw waaye njëkk loolu dundal na koosi lu mat juróom ñaari at yoo xam ne ba mu bëggee ku fa dem bàyyi ci boppam mooy Baye Niass Alaaji Ibrahima Niass moo walanteeru mu ne man de ku may demal Koosi bàyyi moo walanteeru dem koosi loolu moo yóbbu bàyyi koosi mu nekk fa ak daara ji ba nawet wàcc mu ñëw li ñuy wax ne bàyyi maam xalifa ko jàngal maam xalifa moo ko formé jàngal nit ak formé nit doonul benn loolu yëpp nag ci jàngal la bokk ndax booba kaa ngi yenn nit la ñuy wax Fodé ñiital kaang ki tari alxuraan bees moo la gën a yàpp alxuraan mooy yenni ko rek Fodé ñiital ku la gën a yàgg ci daara ji yë ëpp la lum la yër moo la gën a nekk Fodé léegi nag bàyyi Koosi ak Kaolack quinze quinze kilomètres la daanaka lim nar a jàngale suba da koy yër ci guddi gi bu bu ci amee masala yoo xam ne da koo lënt da koy karbat bind ko ci kayit jox ko kenn ci taalibe yi mu war fas ñëw ci maam xalifa ak lu mu guddi guddi maam xalifa bu ko ubbee gis ko jël xalimbaam leeralal kooku moom leer joxaat ko kooku mu dellu bu dee bisu àllarba nag moom mooy ñëwal boppam.
kon àllarba da daan ñëw moom.
waaw waaw waaw.
ñëw ziare si mag.
waaw loolu nag kuñ ci formé pendant sept ans te sept ans yu njëkk ya moo gën a gudd sept ans yi léegi ndax sept ans yi léegi soxla yee yii de ñee nag amuñu woon soxla. jaamu yàlla liggéey jàng jàngale. kon day yàgg. juróom ñaari at nag ku ci jaar loolu. bu la yàlla mayee xel da ngay jéggi dayo te ku demee ni maam xalifa moom xam-xamam moom amul werante ndax da koo bind ñu gis ko boo liiree sara yi nga xam ne lépp luy civilisation arabo islamique maam xalifa da koo naan toog ci xoolal sara yi rek ak yim junj ci way yi sara yi di ko génne nga xam ne kii mboolem kutubu tafasir yi jaar na ci loolu moo tax bàyyi formation am dëgër amut laam-laame ndax moom ci ñi mujj àlluwa ci maamalaaji ci la bokk maam xalifa jàngandoowut ak ñoom mooy ñi maamalaaji mujjee jàngal jàngal waaw maam xalifa dafa jàngandoowut ak ñoom ba ci bàyyi laaj morsey na ko bi maam xalifa di jàng fekkewu ko xanaa téere bu bees ñu di ko indi ñëpp yem ci waaw mu ñëw di dégg wala mu ngoog ni ko maam alaaji daan defee ku nangu nangu loo moomul kuñ ne mën na wëli yu muy wëliwu yàlla nga xidmaal ko lu toll noonu boo fa jógee àddina topp la waaye du lum sikkar du lum oote du dara yàllaa ko fay jëfam rek waaw waaye da ngay dégg ñu naan bàyyi kenn jàngalu ko kenn nangalu loolu yow ku jàngalu amul yonent bi sax dañ ne ko iqra yonent bi sax dañ koo jàngal waaye dañ koo jàngalul mbind yonent bi mbind lañ ko jàngalut wax lañ ko jàngal loolu tax ku ko gën a fasaa a dem nañ ci xadis yi yonent bi kenn gën ko fasaa damaa waxut alquran alquran moom wax yàlla la waaye wax yàlla itam ci làmmiñu yonent bi la ko génne yàlla mënoon na ko waxee nii yonent bi génnee ko ne rek loolu moo ci nekk donc wolof nag maanaa day bëgg nit di ko yëkkati ba far xas ko parce que am na yoo xam ne xas nit la loolu moo tax ñun suñ taarix du rafet damay wax rek ne taarixi wolof moom bàyyi ko géwél yi rek ndax ñoom dañuy taggaate ndax lu ñu am rek maanaam xalam wax wax la loo xam diw te nag dañ la wax loo xam ne sax saaga la sama am rey na buur ba njaay ci lum ko rey ci diine wala ci lan xaar ba guddi nga taal dëkkam jàpp ko ne yeeg jigéen ñi rey ñi dem jëndee ji ko sàngara naan a nga yëkkati say mbagg boobu bàkkaar moom yow mii ndono li boo ci amee sax dem sawar donc ñun su- suñ taarix baaxul nit ku weex nag moom du nëbb dara xoolal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu sosoogut ca ña doon ngoro Abdoulaye naan ko kaay ànd ak man ay jigéen ma delloo la gileem yi ñu la jote woon tey sëriñ boo fi waxoon loolu taalibe yi yëkkati ay xeet te yonent bi moo leen gën fuuf taf li tam sax jotuñ ko waaye ñun ñemewuñ dëgg loolu tax ci ku ci yàlla dimbalewut ci réer wala ci kéefar ngay dee macha allah boo gisee nag ñuy leeral lii yëpp pour ñu démystifier lu bëri luñ aayal aayut yëkkati nit teg ko maqaama boo xam ne yow xamoo maqaama ba ku am certificat mën naa juger ñoo xam ne ay doctorat la ñam nu mu leen di corriger loolu nag moo xew suñu réew mi looloo tax waxtaan fi ci taarix lu jafe la déggoon naa ñoom euh, Thierno Ka ñu ne am ko luñ ne boo xam ne dañuy bindaat taarix yi Sénégal mën na leen du dox parce que am na ñoo xam ne boo waxee dëgg ñu gàddu ay yet wala ñu génne fetal wala ñu demee noonu. te ñoom fekkee wuñ te tax ña ñuy gàddul ay yet sax bokkuñoo ak ñoom dara duñ seen maam duñ seen nijaay duñ seen baay duñ seen dara donc te loolu yëpp nag philosophie wolof la waaye làkkat yi ñoom meluñ noonu macha allah donc ci loolu nag li ñuy wax yëpp ci cadre boobu dañ ko teg parce que cadre intellectuel la amul kii laa faral ak kële laa faral déedéet ay far amut njëriñ ah da nga far ak sa mbër sax ñu daan ko di far moom affaire yi atifa la waaw sentiment la rek waaw bu nekkee ci dëgg moom nga faral bu nee ci ay fen moom nga faral bu bu- buñ ko daanee moom nga faral bu daanee moom nga faral donc loolu taxul nit ñi jóg nit ñi li leen tax a jóg mooy ñu jëlee ci exemple pour man cee defar seen àddina ndax yonent bi loolu rek la ñu xat kaana lakum fi rasulillahi uswatun xa- xasana loolu la alquran waxe yonent bi roy waay la rek loo tax ñuy nettali taarixam kon nag ñii ñuy nettali seen taarix ay roy waay lañ waaye mu jàpp ne lii ak laa liñ ci xam nag ci taarix ak liñ ci sañ a wax tax li tubaab di wax ne toute vérité n'est pas bonne à dire nit du li dëgg lépp da nga ko wax déedéet ndax ñun euh, suñ nopp yi euh, day am loo xam ne da ko censuré ngan ji nopp boo ko déggee te rafetul nga ne na nga xar suuf si dugg ci te doomu aadama insaani yëtoom gi bachari yëtoom gi moo tax mënta mat ci ci ci anam yépp comme yàlla ci loolu nag gannaaw maam alaaji nit ñi jaxasoo ndax kàngam mu toon ni maam alaaji nga xam ne ñëpp ci tuma nii na lañ nekkoon ci seen diine euh, ci seen relation sociale alaaka yeeg nit ñi ci lépp lu leen jaaxal ndax booba réew mi dafa fees dell ak ay aada yoo xam ne pour dindi ko fi maam maamalaaji ré- muslix la woon du nekk sax muslix kese mais euh, sawri la woon révo maanaam dafa indi révolution ci suñ dundin ak alaaka yi dox diggante nit ñi ci affaire yi sëy bu njëkk bu ñuy maye say po pon lañ daan indi maamalaaji moo ko fi dindi ñu indi guru bu njëkk euh, dëj daanaka sorewutoon ak ngénte rayaay nag ak euh, bu fekkee caddol yi la ñuy bàkk say maam di sabar ak a tëgg indi aaday tënj yoo xam ne daanaka ay lenge ngay yore comme ni njulli yi def yore paaka waaw boo rombee nit ñi dem ca teen ba ñu di la sànni bant ak di la sànni këriñ te dee du tax kenn affaire yi saraxal yooyu maamalaa ji moom la fi dindi indi fi jaamu yàlla goo xam ne dara raxu ko buy jàngale ne ne jigéen ñi ñëw dégloo buy firi alquran ne nañ déglu parce que diine kat ku ko jàngut doo ko xam waaw ñaan yi nga war a ñaan ak kii yeeg yëpp nit ñi dañ koy xam waaye fi mu ne nii ñu toll ci réew taax gi am na ñoo xam ne baaqiyaatu saalihaat xamuñ ko sax jàpp njàpp moom pour pour pour pour pour pour ñu rafetal ko beneen affaire la sàkkantumaa di xam nag sunna yeeg farata yi waaye loolu lépp moom da ko fee saxaloon moo tax kooku nag bu dëddoo nit ñi dañuy tiit
léegi bi nit ñi tiitee bi fi mamalaaji jógee ko léegi mamalaaji nettali nga ñu dundam ak maam xalifa dundam ba mujj bañ xam ñoom ñaar niñ dundee complice bi am seen diggante yëpp ni ñu ko leeralee wan ñu itamit intérim bi mu géré woon ak ni mu changé culture yi ak doxalin yi ba ñoon sax ñu mën a dégg li ñu daan wax nañu mamalaaji daan na wax ne Saalum moom bu mu fi ñëwutoon danañ dara du leen teree jaamu xërëm kon doxalin yi mu changé ak façon bi mu jëlee nit ñi ci lim ñu libéré mooy doxalin yi ñu amoon te méngoowut ak islam yëpp dégg nañ ko léegi nag comme mamalaaji dafay jógee nekk ponkal waaye bàyyi na fi tamit koo xam ne nii ponkal la ndax gisoon nañ naar ba wax alaaji mu ndaw ne ko comme muy sa way jur comme maam alaaji def na effort ba indi ku mel ni xalifa léegi ku mel ni xalifa moomu naar bi doon wax ne moom la maam alaaji indi bi fi maam alaaji jógee maam xalifa nan la géré intérim bi li ko ci dalee ci 1922 boobu noonu à partir de 22 sept ans yu njëkk yi moom tënkal nga ñu ko ci tool yeeg taxawaay ba ca Cheikh al Islam Haji Ibrahima taxaw bénéfice ba mu ca jëlee muy fatul akbar gam ca amee indil nga ñu itamit maanaam moom maam xalifa yi tamit sanc gim sanc saam gannaaw bu mu dundalee fa baayam nekkoon léegi nag à part sept ans yooyu noonu ak tamit même bu fekkee am na loo ñuy ñaam masaat ci biir sept ans yu njëkk yi mais à part sept ans yu njëkk yi ba cinquante neuf gi maam xalifa dund li ci nekk ci dat ci ay histoire yoo xam ne mën nañ ko takk mën nañ ko bind boo ñu ci doon ñëwal lan nga ñu ciy ñëwalee
waaw xam nga sa temps yi gannaaw bi maamalaaji yi demee te maamalaaji dix ans mi mu fi def at mu jot buñ gàmmoo ba fajar dafa dénkaane dénk taalibe yi ak njaboot gi maam xalif ne leen alaaji ma mat laa leen di bàyyee bu ngeen ko toppee dana leen teg ci sama loxo ma teg leen ci loxol Seexu Tijaan Seexu Tijaan teg leen ci loxol yonante bi yonante bi dugal leen aljanna at mu jot mu baamuwaat loolu kon moom ndénkaaneem ci maam xalifa la ko defoon ndax wóolu na ko formé na ko def na ci moom loo xam ne yaakaar na ne li newoon ci moom def na ko ci maam xalifa kon war na ko mën a uutu ci njaboot gi bàyyi moom ma leen wax doon naa ko wax samay sët ak samay jarbaat ak samay doom nan leen ku liggéeyut doo am dara ku defalul kenn dara doo am dara yàlla ragalut kenn waaye nit mënta baax ba ñeemale la ak yàlla yàlla moom da ngay liggéey rek mu fay la maam bàyyi moomu dëj bu amaan mu xaddam bu génn àddina moom xalifa taxawee ko bàyyi mooy taxaw ci wetam kaalaam googu rafetoon lool nekk ci bopp bi njëkkewut ci bopp bi ci ndigg li la njëkk kaala bu njëkkee ci bopp day rémb day rémb borom daanu si ci ndigg li waaye bu njëkkee ci ndigg li ca bopp ba lay mujj bu paree mooy laajal maam xalifa àddiya ne ku ku waxoon ne boo gisee yonent bi jox ko àddiya boo gisee xalifa mii war nga ko jox àddiya muhammad la tudd baayam abdullahi yaayam aminata ñu dajale addi yi mu jox kon lépp lu bàyyi am ci wërsëg moo ko liggéeyal boppam ba ci mujj ak dundi maam xalifa lu nekk defal na ko maam xalifa léegi nag diggante bi gannaaw bu maam xalifa bàyyee ko si sanc saam saañaar la tuddoon mooy fii weti ngeexoo presque quinze kilomètres de Kaolack la moom itam ci yoonu Gosaas da ngay ñëw ba colongaan nga jàdd romb ngeexoo dem saam mu di fa bay yóbbu fa daara ji foofu Baye Amadou la fa njëkk a yóbbu Baye Amadou Aminta moo jur ñoom Baye Laaj Setu ak ñoom Baye Laaj mu tuuti moom maam xalifa ñoo bokk ndey ak baay ñoo bokk ndey ak baay mooy caatu yaayam mooy caat bi mu teg ci sam papa jàngale na fa gannaaw gi nag ña fa jàngoon ñoom itam daara ja daanaka tas ndax booba jolof jolof yeeg bawol bawol yeeg saalum saalum yeeg ñëpp ñëw nañ maam xalifa nag di jàngale daanaka li bokk ci li tas daara ji lim toog di jàngale fii noor ak nawet loolu ci la bokk muy bay foofu nag foofu leetarab sukkayru ju fekk na ko fa wala ay leetaram mu toog ci tool yi leetar yi ñëw kaw la ñu nit ko ko mu di ko jàng mu ne na ngeen defar ndab yi te pare taataan am na luy ñëw ndab yi mooy lan mooy xol yi ndax booba faydu baa ngi ñëw faydu nag nit ñi xamuñ mooy lan faydu fayda naat fayda naatul anwaar la ndax inondation inondation de lumière la inondation mooy bu dex gi feesee walla géej gi ba baawaan ci jéeri ji nga xam ne day yóbbaale tabax yeeg tool yeeg lépp lee nag ci wàllu leer la ndax anwaarul muhammadiyeen bu feesee ci ndabal yonent bi bay tuuru ndabi wëllu yi ñoo koy taataan ñooñu itam ñi nekk ci seen ron la cay toq ñoo koy taataan feeslante gi nag mi ngi aji ci ndab li tey buy taw nga jël beñwaar teg wala nga teg bërigo wala siwo ci ngay gën a mën a jariñoo ndox mi ci boo tegee kaasi attaaya xam nga kaasi attaaya boo ko tegee du fees ndox mu ci dal rek génn ah essayé leen ko seet rek ba xam doo ci am lu seeyal per mu léebu leen nag loolu ñu ne wal dul xaaji ko fi indi déedéet maamalaaji moo ko ñaan faas ci xasidaam ba yaa rabbana alhamdulilah déedéet alhamdulillahi ala wusuli déedéet du boobu beneen bi yaa cheikhana ahmada tijaani yaa amari yaa xayra man warisa nabi maljana waaw ba muy wax afit alayna waaw yaa mu fi du fay naana ca la ko maamalaaji ñaan te maamalaaji lum ñaan sax mu may ko ko faydu ci maamalaaji la njëkk a ñëw mu bloqué ko tànn mu xaddam yi xamal leen yàlla maam xalifa itam tànn ay muqaddam xamal leen yàlla ba fuuta ay ñoom tafsir Moustapha ak Moustapha Debi Caam ak tafsir Balla Seck ak
tafsir Moustapha sax moom da koo bind moom waaw moom moom moom da koo bind waaye tafsir Balla avant muy dem dama oo njabi di neen waaw sikkar si may dégg nag ak pënd beeg coow li oto yi ñu ko ah ñoom ñu buñ génnee déré daa ñun de suñ bay bopp bi dafa toj fi mu ne mu ne déggu leen si kar si ñu ne déet mu ne ah waaye nit ak xam daal moo jafee waxal xam nga kooku xam na yàlla waaye cinquante et un bi maam xalifa àndeek waa kucce yi ak waa bawal yi ñu dem fuuta aksi moo ko coowleeg si kar si jol fekk mu ñëw di jaale si tafsir bàll ñu ne xay ndeke lii la bay doon wax waaye ñun boobu munuñ koo dégg waaye ñooñ ñëpp nag dañ le santuñ leen ñu tasaare ko jamono yooyu buñ ko tasaare woon réew mi kenn du fi am taalibe ndax loolu yàlla kër Alaaji Ablaay Ñas la ko jagleel xasida yu bari maam Xalifa bind ci kibritu ahmar ci jamonoy faydu bi la ko bind ndax boo ko liiree yépp maarifatu la lay jox waaw wa min kuwuusi cheikhi kaana mashrabuna asqi wa usqi sihaabi haysuma qatanu kooku ci la bokk boo boo boo ñëwee ci xaaji shawqal fu aadi baada masibin da lay jox loolu ak ak yeneen i yeneen i xasida ci biir diwaan bi booba xarixa bi guddi la koy dikkal mu way bu xëyee bàyyi mooy dajale taalibe yi ne xalifa am na doom bi kaay leen ñu tudd ko kon xasida yi daan maam xalifa daan bind bàyyi moo la daan informé waaw bu bu bu ge bu xëyee oo bàyyi jox ko xasida bi bàyyi moo koy firil taalibe yi ne leen xalifa am na doom bi kaay leen ñu tudd ko mustalaxaat yi ci def te mu aju ci maarifatu bilaay bàyyi moo koy jottali taalibe yi da nga gis jamono boobu xale boo xam ne day day day day nàmp xam yàlla te sikkarut benn baat ndax mën a gut a wax waaye dana toog ñetti ñetti fan yoo xam ne du nàmp waa kucce yi dañ daan ñëw fekk maawinte safi def cinal laax muy pot poti ñu ne ko donget tiim ko lekk ko ba mu set ci tàngaay bi te du leen lakk waaye ñu ne ay sawara dafa am sawara du sañ ta lakk te amul ndigal ñu dund loolu nag fi mu ne boo ootee maarifatu ñu beroog yow laaj la ñaari yoon lañ lay laaj nga càng loolu mooy faydu inondation de lumière la nit ñi yàlla fóot seen xol yi dugal ci leer ak yàlla am na ñoo xam ne si këru waaye Moustapha Bay di mu ne dafa ñëw ci maam Khalifa ne ko man damaa bëgg zikrul ilaahi pour xam yàlla maam Khalifa jox ko ndigal mu dem mu sikkar sikkar xawut dara mu ñëw ne ko ah man daal sonn naa te mënuma àgg fenn mu ne ko da ngay dem ci xabru maamalaaji ba nga toog foofu si kar trois heures du matin la àgg mu xëy suba fekk maam xalifa toog ci der bi di jàngale mu toog ci wetam di ko puus nit ñaa na ay kii lu muy def nii maam xalifa ree ne leen dafa àgg xam nga boo àggee dootoo gis dara lu may yàlla yàlla nag xolo koy gis sa xawaas yépp ay yëg seen borom loolu nag dafa mel ni kuy yéeg étage rek boo demee ba ca njoon loxtoon la nag il faut ñu wàcce la buñ la wàcce doon nga aj foofu dootoo bokk ah mais étage wala trente nga nekk ca kaw yow boo dee ministre dootoo liggéey boo dee baykat doo dem bay bokkatoo du dëgg boo fa ajoo nag sag insaan yee day dem sag bachar yee day dem looloo tax ñu di la wàccee ba nga nekkaan insaan aadi loolu moo nekkoon faydu bi waaye loo gis nag dana am ñu ëppal ki la ci jaarale nag boo ko defee yàlla dootoo gis ñeneen ñi loolu mooy inconvénient bi te yow sa sa sa maqaama attanu ko kon fokk nga def njombe loolu taxoon maam xalifa bloqué ko ne dootu ko joxe
kon moom lu mu daan joxe la mu dem ba ci Abdou Ndaw mu tànn arrêté ko waaw
parce que man doomi alaaji Baabu Ndaw waaw xamal na ma ne ma bàyyam ñaanoon na ci ndigal maam xalifa maam xalifa ne ko dañoo nekk jamonoy nawet waaw waaye bu nawet bi jeexee comme da ngay bay boo fi ñëwee incha allah dinaa la ci jox ndigal te dinaa ci jëflante ak yow nee na laata nawet bay jeex mu bind mu bind alaaji Mor Diané leetar xamal ko ne ko neel alaaji Baabu loolu ndigal la ma ci joxe woon rocci naa ko
waaw na dem toppi xeñ ba ba loolu moo tax bàyyi moom mu waaw nekk waaw kenn ki.
waaw maamalaaji xam nga loo gis dafa am jaanib salbi xam nga paaka ñu defaree ko weñ daas ko bam ñëw ku rey nit taxu koo jóg paaka dañ ci rey jur fees ci daggat ci sa yàpp daggat ci soble daggat ci sona dañ ci dagg buub dañ ci les xalimba dañ ci def ni waaye ci côté boobu am na ñoo xam ne buñ ko jëlee dañuy yongaat nit ñi jam leen jël seen alal te loolu baaxut loolu taxut paaka jóg loolu nag moo tax da jàmm côté boo xam ne dafay niroog tamarrut Fettal.
ngay féetarlu dara xaayit lu la neex def loolu nag te wama xalaqtul jinna wal insa illa li yaabuduni ñooñu nag ko muqtadan bi dañu sàmmanteeg loolu bañ ñu delluwaat ca ceddu ka maam xalifa tëj buntu boobu am na ñu ñu ñu xam yàlla ku cey ci daayira lañ ko xamee nii rek gaa yi si kër ba xaal rek ñu àgg weeru koor bi nga xam ne moo topp ci sama maam xalifa bi mu génnee àddina guddi gu jotaan booba sama papa ngi dëkk fii ci jumaa ji rapide mooy duy ay nit ku cey ba mu fees ñu ñëw fii kon moom xalifa laata muy génn àdduna waaw dana def ay xabla zikar yoo xam ne chaque jour taalibe yi dañ daan ñëw di ko zikaral déedéet dee loolu waa kucce yi ñoo daan def ay guddi àjjuma yoo xam ne dañuy sikkar ci kucce yi waaw waaw di sikkar ak di way way tagg yonent bi ak tagg seen naama tijaan bàjjan roq ñees moom ci la àggee ndax dafa ñëw ne dafa bëgg sama baab may ko sikkar sama baab ne ko ah, sama bàyyi da ko tëjoon kon du ma ko ubbi mu dem foofa nag ci géew yooyu ci la àggee ñëw fi ñu wàcce ko sec waa secret boobu nag doo gis feneen fu may ñese ah ci li ma xam boobu am na ñoo xam ne bu ñu ko xamoon def ko ci seeni taalibe baa ñu jox ko seeni muqaddam liir naa maam xalifa ci jeextalu xadd asraqat mu wax mawlaaya hal min jazbatin mawlaaya daf ne wax ne mawlaaya man la bu naa shafaa umu shaaribin jazban bila shartin wa nayla safaayi mawlaaya hal min jazbatin mawlaaya hal min waslatin fiha fanaaw baqaayi am na ñu wax sax ne foofu la ñaanee ne na taalibe yi mujj di ko am te duñ jaarati ci condition waaw duñ ah Cheikh Tidiane da- daana ko def di kam laxdatin minhu dir arwaahi jazibatin fii lam hi tarfin ila naylin ah waaw loolu la waaw loolu la ñoom ñoom xam nga kuñ sip nga ak si ak kuñ tooñ nga yéeg bokk la koo xam ne yaa ñett ñetti ba yéeg ci kaw waaw loolu la loolu loolu nag ci ngënee li doomu aadama yi la rek mu mi ngi aju ci nit ñi ak ci seen xol ak ci seen ak euh, gëm yàlla loolu mooy nag diggante boobu nag am na ci ay xilaafaat yoo xam ne euh, ñi déggul àddina ak yeneen famille yi ak ñi nga xam ne ñoo xër ci lañ defee infisaar tàggoog seeni bokk ak seeni kii rek xam nga loolu du lu ñuy wane yow bu la yàlla may ngay wax sa bàyyi na ko yow xam nga xamoo dara tekki woo dara nangam nangam xa- xam nga jaanib bi mu ci doon bañ ñëw na jaanib salbi bi nga xam ne côté négatif bi négatif
léegi nag diggante boobu ñi ñu doon wax am na ñu fi doon wax naan bàyyi dañ koo génne ñeseen ak nangam nangam yow koo xam ne néeg bàyyi ñes bi mu ko defoon fii muy néegi ñax doon néeg bu rëy mu soppi ko jamono ñëw mu def ko tiwit ci jamono yi maam xalifa ba ilaa yow bi na hasa tiwil baa ngi fii di këram gaa ngi fii ba tey waaye fekkoon ne dañ koo génne kon kon ñeneen dëkk nañ fi yeneen doomi maam alaaji dëkk nañ fi wala ay doomi maam xalifa wala yu demee noonu waaye kenn mosu fee dëkk ku may bàyyi te itam soxna si mu fi amoon muy Faat Jóob di yaayi Muna daf ne ko aminte sa fi moo fi sama ndey ndax mook sama ndey ñoo bokk neeg ndey Binta Ali mi jur ma astu jànqa mook Omar Faama mi jur aminte sa fi ñoo bokk ndeeg bay kon këllëb astu jànq bi aminte safee ko moom yaayi muna bu toogee aj tibbal ma aminte sa bi mu jur alaaji mu ndaw bu toogee reer tibbal aminte sa bi mu jur alaaji mu ndaw kooku ngénne dana ko def dana de yëpp yow da ngaa jubóog say bokk ñëw bëgg a yàq bokki jàmbur nit ñi ñoom ñoo war a xelu ndax li may wax rek ma ne dafa am taalibe yoo xam ne addiyaay làmmiñ lañ yore yëkkati la ci kaw daane say bopp mooy yéeg ci jàng yéeg ci kaw jàng di xaj suuf bàyyi le problème fondamental mooy ku toll ni maam xalifa ku nekk ci ronam doo feeñ fooy feeñe mënoo fexe fexe bañ ne la yaa ko ëpp xam-xam mageel gi moom mag moom kenn du ko mag bàyyi da nga ko mag nijaay da nga ko mag leneen da nga waaye mag mag kenn du ko mag ku la magee lu mat vingt ans li nga magee taawam bëriwut kooku boo bëggee sos mbir doo ko sos ci ci ronam loolu tax bàyyi jógee fi dem Medina ci tool yi maam njawar jéey yi foofu la sañcoon fi ñuy jullee fi mu daan fi mu daan jullee eet ci saam bayaal boobu foofu la ñëwoon sanc raay bi féetee ko penk mu def fa ñaari at doxut mu mu dellu si mu dellu si ñaseen maam xalifa ne ko bii yoon da ngay woon raay bi gannaaw sanc ci penku raay bi boo ko defee dëkk ba dana dund dana naat mu dellu xam nga xaraka mos na waawoon benn leetar indi na photocopier na ko sax mi ngi sama bagage yi bàyyi doon bind leetar bàyyi xalifa di ko laaj ndigal ci néeg bu mu bëgg a defar fële koosi ah yow néeg bi nga daan fanaan am na lu ci yàqu ràpp na nga bëgg koo eesalaat bu doon suñ classe gi duñ laaj benn ndigal waaye leetar la biñ te loolu mbind la xaraka xam nga ko xam na xaraka bu baax Seydina Baay lañ ko tuddee kër gi nekk ci fuur bi fala ngone woo ak baayam moo ma wan lettre bi kon Baay musul def dara loo xam ne tàgguwu ci maam Xalifa pirim alxuraan mi ñuy wax dafa tàggu maam Xalifa maam xalifa jox ko ci ndigal yaayam astu jànqa indi séeri rabal ak caqi pebe jox ko maam xalifa ne ko alxuraan dafa diis te hibra gone la dama bëgg nga ñaanal ko yàlla mu ne ko jàmm rek ko ciy fekk mos na cee feebar de koppe waaye loolu koppe la sax newul ñaseen newul méri na dënn bi métti bu xaaxtandikoo muy deret mu dem ci benn médecin tubaab médecin bi seet ko ne kii day wax wax ju bari boobu primi xam nga dalal quran alif lam mim ba minal jinnati wa naasi doo romb benn baat doo romb benn aaya loolu beneen mbir la looloo toojoon dënn bi mu am mu am mu am problème yi dënn boobu loolu rek ko ci fekk te loolu c'est normal waaye lu ko mooy prime mi bàyyi xalifa mottali di metel nit ñi photo yaa ngi fi booba bàyyi bo booba sëñ daam mi ngi doon xale bàyyi raaj ibrahima mi itam mi ngi doon xale bu tuuti langaamu ci piliyaan bi maam xalifa toogoon photo yaa ngi fi fi mu ngi fi ci archive yi du gis ngeen ko kon ñaseen amul benn problème bu mos a dox seen diggante boo xam ne dañ naan bii problème kañ àddina xaw naa tukki wala nangam nangam déedéet problème bu fi mos a dugg politique ko indi diggante Lamine ak Senghor am na fii ñaseen am na tiwaawoon diggante sëñ Mansour Mou ak sëñ Babacar Sy problème yi Lamine ak Senghor la waaye du Alaaji Malick mi ñu bokk diggante Mérina ak Niassène itam seen problème Senghor ak Lamine la waaye du Alaaji Abdoulaye Niass mi ñu bokk politique moom kër gum gum dugg rek def na fa najoore xaritan af sa duwa kon loolu mooy léegi nag maam Khalifa liggéeyam yëpp ci jamono boobu mooy jàngale bu xëyee ba ndekki yeey guróom teg yàbbi ji du ko sànni yàbbi ji fajukaay aajo la kuy pon boo ko boo ko jëfandikoo dootoo laal pon kuy naan sàngara boo ko jëfee dootoo laal ku am biir xaaraan yi bu duggee sa biir loolu dañ na ku doom të bu la ko joxee loolu féete na bor foofu la koy teg ñu lal téere yi mu dalee ci fiq ba tuxfatul axkaam ñu teg yooyu mu jël naxwu ba ibnu malik ñu ñu laf loolu mu jël luxa ba shuaraawu sitti ñu teg loolu bu jàngalee bayaan ñu door a tëj bu ñuy teggi téere yi rek ndoxu raxafe yi ñëw mook taalibe yi ñoo daan bokk ñu teg bool yi balaa yor loxoom nag dana xool mbooloo mi léeg-léeg mu ne ah ana sëñ daara diw mi ñu ne newul ci mbooloo mi mu ne ah nuyoon na ma fi ci yor yor dem leen seeti ko ah booba ñam dafa jafe ñu wëri ko fu mu nekk ñu indi ko ne ko sëñ bi mun a ngeen ñëw yaay ko defee bu ñëpp da leen ñu door añ baaraaj Ibrahima nettali na ne am na noor boo xam ne nit ñi dañoo bëri lool xam naa siise siise yi am na ci yoo xam ne yettaale boobaale la waaw ndax booba ceeb yombut Moustapha Cissé yal na yàlla dolli leeram nett dinañu ko ne bi mu jógee jaawal booba jaawal lekk ji neexut dara mu jógee fa ñëw kër Baye Khalifa parce que booba ceeb bi fii la ne fii la jàngee ci Baye Khalifa daalie maam Khalifa bu yoree ñaari loom loxoom ceeb bi jeex te nag day day booru de dafay booru nga xam ne loxo bi rek kay mën a dugg boobu nit ñi dañoo bëri macha allah baaraaj Ibrahima xëy benn bés ñu indi bool yi mu indi super tibb fii tibb fii tibb fu rek defar ba mu baax mu def ci ndawar mu ne ko ah xanaa koy may mu ne ko ak gan daw dafa am gan goo xam ne dafa kii te xam naa bu ñëwee fekk ñu ñu añ mu defar ba pare ñu door a lekk ñu ndekkee nag ba taalibe yi raxasu ba dem mu indi super ba daa di ne ah man nag bàyyi yow laa yërëm ci ñàkk lekk gi waaye mayu ma woon kenn yow laa yow laa doon may daa di teg mu ne ko ah waaw waaye nag bu ko defati man lu ma ci mos rek dana ma doy dama lool ma tafsir moon njaay mu dama loo baaba wuli dama loo mu woote aat ci super boobu kere la ko bàyyi rajo raay ba gëj a def ku yaatu woon la ci ñam tabe ci xam-xam tabe ci alal ñun xale yi nga xam ne ay sëtam lañ buñ xëyaan suba di nuyoo si day wecceeku ji paqueti xaalis ay dërëm dërëm booba banque naar mi ngi fii riidalwaa foofu la bàyyi laaj ibrahima daan war welo bi dem wecceeku ko jox ko ay paquet mu teg ko ku nuyoo si da nga mu yëkkati dërëm daal lay jox kenn du xëyte demoo nuyoo ji ah aboo nuyoo ji doo am la te booba dërëm bi da dafa ay ay ay ay fifti nañ ceeg duubal ak yooyu yëpp nga xam ne lu nekk nga mën a jaay boobu xaay bi dafa barke bu tusbaaree nag buñ añee ba pare nag bu añee ba pare nag lay door a serlu ba bañ noddu tusbaar mu waajal tusbaar julli daal di noppalu diggante boobu du fi jàngale ba tàkkusaan bu jullee tàkkusaan ba wirdo nag daana am darsu bu mu daan joxe darsu bi oustaz jaafar li bi ñëkk a def fi école arabe daana fa ñëw bokk téeréem di jàng si moog ñeneen bu dee jour de dimanche nag mbootaayu ndar-ndar yi nga xam ne ma mbay njaay moo ko jiite woon ñoo daan ñëw ci moom jox ko Maodo ci lislaam mu di leen ci waxtaanal ndax booba ñoom ay ndar-ndar lañ jàng nañ ci alquran te jàng nañ école lire les chroniques de Tabari mooy taarixu Tabari lañ ca amul la ca lënt ñu ñëw laaj ko maam xalifa mu dugal leen ci taarixul islam ba ñoom dañoo mujj nekk ay fóode nekk mu arrixuun yoo xam ne taarixul islam dara réerul ndax bu saaxo mos nay gàmmu fii di wax ñi nga xam ne dañoo bokkoon ci yeneen diine diine majusiya wala nasraaniya dégg yonent bi ci se wala ñu xam ko ci seeni téere wane ne mu jëm dëkk bu ñuy wax yasriba di dëkkab yahud foofu lay mujj te mooy madinatul munawar muy wax ku demee ni salmaanul farisi ak ku demee ni diw ne ah waay waay ku may gàgganti waaye diw diw waay alaaj ma mbay yaay ne ko jibilata ibnu layam mu ne mbërëngoog ca làng ga te taarix yooyu bàyyi ma mbay mu ko jële woon ci maam xalifa kon dundam yëpp jàng ak jàngale la woon ak taalif taalif yi nag dafa amoon moom irtijaal la doon def toog di seet ay téere baat bi naa déedéet lépp ci xel mi la nekk waaw bu tegee xalima gi moom macha allah ba xarixa bi dem bu jeexee jeex ñëwut mu ne ah sama borom nangu na ko am na ci diwaan bi am na benn bayt kii bu njëkk bi la indi satara bu njëkk bi li ci des moom trou de mémoire xamut lu mu ciy teg mu bàyyi ko fa daa dem ci zaawiya bi julli ji ñëw di def tahiyatul masjid yi daa di kàbbar bi mu sujootee rek mu ne dafa am lu tolloog nopp bi ne ko sirrul wilaayati nuuruha tiijaan yi mu teg ko ca wayo mu maase xam nga moom nekkuloon nit ordinaire daana tëdd guddi xarixa bi ñëw te booba këyit yombut lu ñuy préparé la day ee yaa fàttut wala yaa faama bu fekkee foofu la fanaan ne ko demal leeñal ma kooku dem xam nga ñaseen di nga foofu dafa bëri woon beej bu ko defee kooku jël mbagaanam duy ba mu fees ak suuf mu ñëw sotti ko ci ruum bi bu xarixa bi ñëwee rek mu jóg ci suuf si lay bind bind bind ba mu pare mu fab darab ñu muur ci bu xëyee mu oo Baye Rajo Ibrahima wala Baye Aliou ne ko kaay sottil ma lii. mu sotti waaw. Baye Aliou moo njëkk a nekk secrétaire am. bi mu amee soxna nag fekk Baye El Hadj Ibrahima moom mokkal al- alxuraan yore daara ji mu remplacé ko Baye El Hadj Ibrahima ndax borom borom soxna moom neexut a déranger waaw noonu noonu noonu la affaire bi demee kon xayaatam ci kër gi tool la tukkeem nag gàmmu Kuccéy gàmmu yaa buri ndaw Kaffrine wala mu am mo mu xaddam bu génn àddina mu dem taxawee ji ko ci àll bi bu moyee loolu tukkeem mi mu dem Faas 1925.
yoonu phase bi moom laa bëggoon ma ñu ñëw ci ci deuxième partie parce que première partie bi fi mu toll nii waaw.
mi- kii baa ngi may signalé technicien bi moom may signalé ne ma première partie bi jeex na te comme ñaari partie la waroon nekk deuxième partie bi dañoo bëggoon ñu kale ko ci yoonu Faas yoonu Kuccéy Fuuta, yoonu Fuuta ak génn àddina ñetti points yooyu lañ bëggoon ñu jël ci waaw baax na kon nag loolu moo nekkoon xayaatam fii mu doon xayaat bu simple bu julli ayet ñëwee muy tabaski muy iidul fitri di korité commandant de cercle bi newoon fii ak commissaire bi dañ daan ñëw tool tout tout- tout blanc Euh, maam xalifa dafa leen taabal ñu teg ñu muur ko darab bu weex ñu ñëw toog ak seen ak seeni chaise di assister julli gi bu ñu jullee ba pare ñu ñëw félicité sama maam xalifa ndokkeel ko dellu ndax moom moom moom moom lañ jàppoon comme xalif général yi alaaji Abdoulaye Niass moom lañ bindoon ci kayit yi seen lépp naanaa moom lañ ko defoon donc ñu jàpp itam ne borom xam-xam la ndax ci jamonoy Maam Alaaji lañ ko nommé woon assesseur euh, tribunal musulman et coutumier gannaaw buñ ko falee chef de canton Diouroup sama Maam Alaaji bañ ñu ne nag borom xam-xam bu mel nii duñ ko seetaan mu toog rek di chômer te utiliser wuñ ko loolu taxoon ñu nommé ko assesseur kon moom daraan dem tribunal di àtte waaw ji daan dem tribunal di fekkee àtte yi lu ci dëng mu ne charia waxewut noonu pour ñi nga xam ne dañ daan àtte ci wàllu charia moom ci wàllu woowu la waaw waaw moom ci wàllu boobu la nekkoon superviseur la woon waaw du moo daan àtte moom ci boppam mais bu àtte bi awut yoon moo koy redressé waaw maanaam genre dalose la woon rek boo xam ne dafay dajale àtte yi wax ne lii mos nañ ko àttee nangam lii nangam nangam yoon charia nii la def xalil nii la indi wala tuxfatul ahkaam wala nii wala naa noonu la ko daan defee loolu ci ginnaaw Maam Alaaji la ko nekk wala ci kanam Maam Alaaji kanam maamalaaji la ko nekk ginnaaw maamalaaji nag dem na fa ay yoon dematul mujj gi Baye Amat Thiam mi daan nodd moom moo moo jëloon palaam moom la daan yebal à sa place muy dem di fete ci yooyu waaw loolu waaw xam naa li ma leen waxoon rek ne lu ci nekk dañ ci mos tuuti rek waaye lu- kenn mënu ko waaw jël.
maanaa lépp nit mënu koo jël ku ci nekk mais nit dana am ay données de base yoo xam ne danañ xam kii ban façon ngi nit la woon te nag mosul tëju samaam amul bëkk néeg li ma gis ci moom daanañ ko yónni dañ yónni benn xa- xale mu ñëw fekk mi ngi toog wéeru ci pet mi nit ñi toog kooku ne ko maam dañ maa yónni ci yow mooy muñ mu ne ñokket jóg dem ba fële mu woo ko mu ñëw kooku wax ko yow yow yow diñ ko yónnee yëpp après mu dellu si at toog loolu sëriñ boobu maanaam ci loolu ma man de àgguma fenn waaye loolu nit mënu ma ko defloo moo tax simplicité am ak oyofam foo ko nat romb na ko waaw maanaam insaan aadi bu simple ku woyof ku baax ku tabe ku am xam-xam
tabarakallahu sëriñ bi ñu ngi kontaan bu baax di am mbégte bu beer maanaam ñeseen gi sax feeñ na ci ndax ñoom moom xam naa ne fu ñu tàngee li ñu si gën di génnee ndax ñoom seen yëf yëfi baatin la moo tax euh, fi ñu daggee première partie bi ñun yëg nañ ne euh, am na foo dugg ci sama am foo xam ne buñ la bu dootoon ak yëfi tubaab ak yëfi technique buñ la bàyyi woon nga continuer danañ gën a am lu gën a am solo mu mel ni ñëwal nañ ci point maam Khalifa ci lu gën a sori ci la ko dalee ci juddoom ba ci fi baayam génne àdduna ñëwal ñu ci tamit relation am ak ay doomi baayam waaye jël ki nga xam ne nii moo ci gën a intéressé jamono muy Cheikh al Islam Hadji Ibrahim nga xam ne rakkam la nawleem la wax itamit ñoom ñaar complicité bi nekkoon seen diggante ak tamit kenn ku nekk complémentarité bi mu nekk ci moromam di ko dimbale ci wàllam ba boo leen boo liiree kii liir kee sax day tax nga gën a dégg keneen ki fa tabarakallahu tamit boo xoolee it ñëwal nañu ci moom xayaatu al yawmiya mooy programme du jour am nan la daan demee bu xëyee nam daan jàngalee ca tusubaar gaag ca takkusaan gaag ca lépp ñëw ci ay kaatibam mooy ñi nga xam ne ñoo nekkoon ay bindkatam deuxième partie bi nag incha allah dana ñëw ak ñun ci ñetti point yu am solo bu njëkk bi mooy mooy rexlatu ila Fass mooy tukkeem moom maam xalifa jëm Fass ñaata yoon la fa dem ak bi mu fa demee lu ko undu deuxièmement bi mooy rexlatu ila Fouta mooy tukkeem maam xalifa moom jëm Fouta beneen bi nag mooy dégg nga maam aaxiru xumrihi aw aaxiru yawmihi mooy génnu àddunaam mooy wafaatuhu tabarakallahu kon deuxième partie incha allah da ngeen ci ànd ak Ibrahima Chafin wu Niass technique El Hadj Idrissa Dioum réalisation Aboubacar Touré wasalaamaaleykum wa rahmatullah